leen di nuyu di leen siyaar baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, niñ koy defee saa su ne euh, seen émission tribunalu aar bi kër géwél atu ndaanaan yi ndaanaan bu ci ne dinañ la fekk fa nga ne wala nga fekk ñu fi ñu ne ñu dalal la suñu plateau waxtaan ak yow sa wàllu carrière ci wàllu showbiz bi nga nekk ci wàllu wàllu bi nga nekk di ci di ci di ci yëngu euh, tey nag ñoo ngi fii Fass doomu Kolobaan doomu Ndakaaru macha allah xale la wante liggéey na ci réew mi loo xamante ne nii réew mi léegi ñëpp xam ñëpp ko ràññee kenn dootu ko présenté ci même réew ñu koy wax Matar Ndiaye euh, Matar Ndiaye nag ku xam xam ne mooy mooy tuusal mbër mi ñuy wax Ada Fass te yemul ci yemul ci ci mbër moomu kese am na yeneen yeneen yeneen i mbër yoo xamante ni tamit bu ñu gëmboo moo leen di tuusal mu def lu ne nag ci aar def lu ne ci ci suñu Sénégal mu nekk xale euh, dama koy bàyyi mu nuyoo rek laataa ñuy dugg ci ci ci waxtaan bi euh, Matar nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay. loo ne. maa ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi am maa ngi am jàmm bu a baax. naka euh, waa Fass. waaw waa Fass ngi nii rek. di féete victoire ba léegi rek. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. yéen a ngi ci victoire bi di ko féete. ñu ngi ñu ngi ñu ngi si victoire bi di ko féete bu baax a baax. Ah mbër. mi ngi fii. waaw mi ngi fii mi si jàmm. mi ngi si tàmbaliwaat waaw parce li li li nekk si kanamam dafa bari moo tax fa mu commencé waat tàmbali na xale la daa nekk si yoonam maa ngi koy nuyu tamit bu baax du nuyu gox bi ma dëkk du nuyu Fass waa Fass waa Médina waa Grand Dakar Tali waa Grand Yoff moo du entier ku lim juum waa Wakaam Ngor Yoff maa ngi nuyu ñëpp di leen remercier da ku nekk naa sa taxawaay mais ak géwél tamit tëggkat yi yëpp jouru combat bi tamit ku nekk gis naa say appel ba mu jeexee tamit gis naa say appel maa ngi remercier ñëpp bàyyi ma kenn ku lim jum nag ku lim jum mais tey suñ bëggoon a ñëw ci sa jëmmu am sénégalais yi laajte kan mooy Matar est que ah. mun nga ñu wax kan mooy Matar fan la dooree famille bu mu bokk ndayam baayam ci ci ci wa waaw Matar benn benn jeune boo xamante ne day doog a door mhm. te li olof Njaay naan su lay li ngay ne mhm. da nga koy gëm nga bëgg ko mhm. loo gëm rek sunu borom bi sotil ko mhm. man du ma lii may def nii namp ma ko namp ma ko de ah ma géwal de doo géwal géwal ah, sama yaay ji sama yaay du géwal sama papa du géwal ah bon barki Seydina Muhammad ah, mais dama foog dama bokk si fukki penc yi si Ndakaaru fukki penc ak ñaari fukki penc dama si bokk dama si am wàlla ndax sama ci naka si naka samam maam Ndeye mhm. dafi am wàlla ma daan yàlla ko yàlla xaaree àjjana barki si yéen tamit kooku dafa dafa nekk si ndakaaru def fi loo xamante ne ñu ñu tuddee ko ndëy rajo dalaan dëpp man avant dalaan dëpp waaw dëpp kon yow àllab lébu dama bokk fii dëgg la su ma tëggee kon dama war a tëgg dëgg la ma tëggu dama war a tëgg yaa moom Dakaaru suñu kër famille yi nii yaa moom Dakaaru damaa jël sama néeg yaa moom Dakaaru déggoon ma la damaa jël sama néeg mhm. pour wam bëgg ko sama néeg kër famille laa nee de barki yonent bi mhm. ma jël sama néeg mhm. jënd samay matériel dugal ko fa dem luwee ji xanaa déggoo ma de maanaam da da nga da say matériel ba mu doy xam suñu kër famille la waaw suñu kër la kër famille dafa neex mhm. nga yeew gis say famille mhm. gis sa yaay mhm. gis sa papa gis say nijaay dafa neex mais man damay yeew kër jàmbur laa yeewoo na parce que nax lan bëgg gi ma bëgg sabar yi bëgg gi ma bëgg aar gi tax na ma jël sama néeg bu may fanaan ma dugg fa samay matériel dem luwe ji di fay cent cinquante mille appartement ah bon waaw waaw dangaa dangaa tax dama déggaluma la dama dem luwe ji ah bàyyi jël sama néeg bi ma yor fii kër famille. waaw ah. duga fa samay sabar. non léegu néegu célibataire nga yor wala léegu. néegu marié ma la <laughs> xanaa xanaa déggoo ma xala fii day neex. tey fii waxuma la neex sax tey wii waxuma la neex sax day romb neex. maa ngi dee waay man maay géer gu mën géwal. mais mais mais mais mais affaire bi yow na naka loolu duggee ba nga am amuuru tëgg sabar. na parce que man avant may tëgg sabar dama doon fubal. a ah, joueur nga woon. sama turandoo joueur la. mooy kan muy Matar Ndiaye bu penc. ah bu bu bu penc bu ah, moo sam papa ñoo bok bàyyi. moom lañ ma tuddee fa laa nekkoon jóge foofu ñëw fii sama nijaay tax ma man maanaam ma bëgg a aar Moussa Diop. waaw day tëgg. day tëgg en même temps day joxe cours day joxe man moom lay àndal di liggéey ki ma jàngal tëgg ñoom ñaar la Laay Mbay Moussa Diop Laay Mbay mooy géwal Laay Mbay mooy géwal man douze personnes yu may àndal yëpp kenn kenn du si géwal ñëpp ay géer la ñëpp ay géer la kii day clavier kii day batri ñenn yi dañuy way ñenn yi tëgg te ñoom ñëpp ay géer la te ñoom ñëpp ay géer la kon métier mi kon nekkul métier moo xam ne métier géwal kese la non non du question géwal ak géer affaire gëm-gëm la samay samay du ma yóbbu mukk ñu ma koy fooral sama bopp. samay peeg maa defara sambob bopp maay maay dem xoolal jël sama jaasi dem si nim bi dagg defara sama peeg. mais Matar yow. parce que yonent bi der maay dem jëndi der bu bu war a dem si mbëmbëg bu war a dem si cóol der bu oyof bu xaw a tal tuuti mu yam pour def ko si mbëmbëg. maanaam yow su ma la déggee maanaam lii ma may may ano samay samay ma maa koy ano yenn saa yi maay décorer samay sabar jël sa garaate ko ba set décorer ko ba mu rafet mm-hmm. samay sabar maay defal lépp sama sama néegu sabar amul lu si manqué batterie sax mu ngi fa batterie génne sama xaalisu bopp jënd sama batterie jënd sama ñaari clavier dégg si amateur jox ko sama boy bi di jàng clavier waaw kon géwél yéen ñi ñuy déglu di ñuy seetaan kon gëm leen ne amul Pël Fuuta bi amul njaago bi amul joolaa bi amul géer bi ñëpp ci am wàll ñëpp ci am cër parce que xamal lan la bëgg-bëgg la te wax dëgg neex yàlla lu waay bëgg lu ne euh, na la jaral comme ni mu jaralee euh, suñu invité bi toog parce que tamit métier mi euh, da ko xool bëgg ko am amour bi mu jaral ko mu jànge ko ba mookal ko mu jaral ko tamit mu jël xaalisam jënd ay matériel am ba mu doy parce que lan bañ na ko ko yàpp bañ na dem di abbi bañ na dem sax di am ay programme di woo ñoo xamante ni dañuy ñëw di indaale seen instrument moo waral mu jënd ay instrument am ba mu doy teg wut ay booyam former groupe am fu mu jëm ànd ak ñoom di tëggi mais avant loolu euh, ñaata am nga defagum ci ci ci métier bi. métier sabar bi mun naa seetlee deux ans laa fi defagum de deux ans chaque année damay féetee fii sama sur mais dama doon ànd sama ñoom ni yaay maa ngi doon mbalaxa lu tax ma beer sama groupe ñoom ñoo la ma nii xale nga te ndaw nga te jot na pour nga jël sa yoon bopp ñoom ñoo ma ñoom ñoo ma dee loolu kon sinon instant yi nii maa mbalax ba léegi wala ma toog di tulli cool mais ñoo la ma xale nga te say morom rek ñoo si yor groupe instant yi doxalal nga daal doxal ba may doxal nag kantin avant ñuy doxal kantin lañu yoroon def say sabar doxin bi ñëpp ñoom fa lañ fa lañ ma ñu gën a respecté jox ma cër sama néeg bu ma génn dugal fa instrument ñoom foo lañ ma gën a respecté foo lañ ma gën a fonkee te programme day am mën naa leen toog leen toog leen fii te ñoom ñoo ma jàngal tëgg ñoo may toog ñoo may tulli ciol yeneen boo yëpp ay mbalax te su ma jugee si tëgg damay liggéey am nga métier sama atelier ngi nii ah, am nga beneen métier bu dul tëgg sabar waaw yow avant bi damay def tourneur dafay ne mécanique def soudeur foor laa nekkoon sam papa Abbas si loxoom laa ne moo ma jàngal métier moo ma jàngal métier barki yonent bi macha métier boobu ba li muy sam bopp heure boo ma nekk fëggee heure heure bu ñu ma fëggee ne ma dama am paan bi liggéey bi ma jug so sama tëni soo dee dama ko demee yàlla dama si defal jàmm dama koy liggéey normalement sama atelier yi nii sama buntu kër. mais métier mi bàyyi woo ko. bàyyi chaque jiwul maa sama métier di liggéey. macha allah macha allah macha allah. Euh, ginnaaw loolu. man xaaruma programme kese. xaaruma programme de. yaakaaroo ay sabar kese. yaakaaruma ay sabar kese. lii dama bëgg amour la si man. ndeysaan nga boole ko ma boole ko leneen. ndax tey dafa may may yamalewul mhm. tey day neex suba mu metti su ma sabar bi su ma tëggiwul neex sama liggéey. di liggéey. Mhm. suñ ma woowee liggéey sama sama atelier papa la man maa tax ñu naan Abbas et fils maanaam papa ak doom. Abbas waaw papa ak doom. Mhm. léegi su ma heure tëggi jotee damay bàyyi booy yi ndax samay raxa ñoo fi ne. waaw samay rek ñoo fi ne damay bàyyi booy liggéey ma jël samay instrument woo sama wax groupe WhatsApp laay bi bu allo waa booy maa ngi leen remercier lépp jàmm nuyu ñëpp ne leen carrément heure bi dañuy tëggi avant heure boobu booy ñëw taxaw. ñu jël suñu euh, di leen di leen ñaanal ñoom mhm. gudd fan ak wér gu yaram mhm. di ñaan tamit yàlla nañ yàlla boole ba ma ñoom ñu yëgandoo avion avion dem ndax loolu laa mbirte mhm. ndax lépp du man du man de ñoom la entourage bi si ginnaaw ñoom la mais du man ñoo ñoom ñooy lépp man volant bi rek laa yor yàlla mooy tànn njiit nag yàlla tànn ma doon seen njiit mais lépp ñoom la bu baaxee ñoom la bu bonee man la di leen ñaanal yàlla gudd fan na heure bu ma leen soxlaa dañuy bàyyi seen ité yëpp ñëwal ma kon aw ma fay ñoom buñ demee ba ñëpp xam ma naan mataar bu Ada matar bu ndakaaru ah lépp ñoom la moo tax di leen ñaanal gudd fan wér yaram ak santé lu fu ñu bëgg a yegg yàlla yeggale yoon teewul ñoom ñëpp am métier man du ma ànd ak koo xamante ne amul métier. du ma koy taxawaal du ma koo xam ne day taxawaal du ma ànd xam ne day tux man na ngay jub selal juróom waxtu yi nga nga matal ko. wax nga lu doy waar ko matal nga jaar nii ma jaar na le man noonu laay dund. wax nga lu jafe ci ci ci sa métier mi ngeen nekk. man waaw yow li lu lu raar la ci métier mi ngeen nekk. man xaw ma tricher. c'est xaw ma tricher dañuy ànd si dëgg. ñu ànd si dëgg nga jaar ma jaar na le man noonu laa mel de nature mhm. te ñu may àndal ñëpp ay xale lañ ay xale yu ndaw lay àndal boo xoolee Ada Fass buy bëre su may tuus ay xale yu ndaw rek ñoo fay ne ñaari mag ñoo may rax muy sama ñaari nijaay Moussa Diop laay mbay nee ñi si des ñii ay mat nañ ma nijaay ñii maa leen mag mhm. mais amul cër bu ma leen war a jox dama leen koy jox bu mat sëkk mhm. ndax ñoo ma jàngal lii ma lii ma mën nii ñoom ñoo ma ko jàngal mm-hmm. su ma demee ba am yenn kii ñoom la kon ñoom tamit sama ñaari nijaay yooyu maa leen di remercier di leen gën a ñaanal yàlla mm-hmm. gudd fan ba fekkee suñu njëriñ gudd fan ba fekkee suñu njëriñ mais mu mel ni que nag euh, ko xam Matar xam na yàgg na yàggul mais dañuy faral di gis ci booy tëggkat yi dañuy am yu ñuy créer mm-hmm. waaw que parce que mag ñi daf dañuñu dañuy wax ne tëgg mi léegi yàqu na léegi jaaratul yoon xale yi léegi ay mbuus la ñuy fooree baarambay gi toogatul ceebu jën bi jar normal normalatul ñoo ngi kaas ñoo ngi joy yaa ngi wax bi mhm. mais bëri na say moroom yoo xam ne tamit ñi ngi ñi ngi créer ay bàq yoo xam ne foo ko tëgg dinañ xam ne diw mi moo créer lii léegi nag la tax nag ñuy ñëw yow ci li nga xamante ni neex mun nga tëgg wala mënoo tëgg euh, nga wax ñu yow am na lan nga fi defagum ci bi nga duggee ci métier mi léegi lan nga fi créer gu ma créer bëri na mooy lan. li ma créé bëri na gars di ko jël barki yonent bi. loo fi loo fi defal na xam nga am na loo xamante ne booy wax sax dañ naan kii day yàq der. wala day wanewu wala day wanewu wala day salte man damay toog sama coin di liggéey. mais mais ñëwoon ñu ci benn wala ñaar boo xam ne yow yaa ko créé waxee dinañ xam ne lii yow yaa ko. muy way nii rek ma ko ban la Bathioum wan too tirifo wala kin kin ba cee wala kin kin ba cee. Thiès booy bu mu naan ala tëgal dugal sa bopp. di di damay bañ nga damay bañ ba seetaan lii xam nga am ci yow. Bas sama nawle la. Ah, Bas dañoo yàgg. mu lay déglu de. Bas mhm. dañoo yàgg. kër gi këram la. Bas cung fii daaw fi géej. déggoolu ma la vaar wax nii. loolu yaa ko créé. déggoolu ma la ñoom ñu jël ko jox ko mais bas bu xamoon ne ma maa ko génnee maa moom ñooy ñooy ñooy communiqué bas numéro mi ngi fii dañuy déggante tout le temps. mais mais mais lan lan moo tax nga créé ñu ñu war ko mën a jël di ko jox ba. parce que dama génne ay façon daaleel yu bees Baara Mbaye. sama rakk Ablaye Mbaye. waaw bu ngéwal. waaw mooy doomu laminaar sama rakk sama xarit la sama lépp la. waaw muy booy bu am am talent nag. bu mën a tëgg. booy bu macha allah moo sëñ Fallou. Mhm. booy bu mën a tëgg mm-hmm. booy boo xam ne dama ma jox cër torop mm-hmm. fu may dem su ma ne ko carte téléphone mu bàyyi itam yëpp ñëw mm-hmm. combat Ada Fass moo may malaxa central kooku mu njëkkee ne cëpp maa xanaa njël soloon naa soloon naa ko sa génde moom barke yonent bi di ko yóbbu fu ne di ko solol génde moo sëñ Fallou Ablaye Mbaye sëñ Fallou kon nga xam ne yàgg na yàgg na kon yow da nga naan simb tamit kon dama naan amoon groupe wala dafa am ñoo doon ànd caat mii laa nekkoon caat bi simb caat bi simb ah bon billaahi mais yow da bëgg wax ne def nga lu ne ba ma lax aar ah, dama kaa bëgg mais mais mais simb bi tamit ñaata ñaata ñaata temps nga ci def si moom at ay at laa si def ay at yooyu waaw ba pa du Ndiaye Rose yóbboo ñu Maroc mhm. ah Maroc bi demoon waaw demoon naa demoon naa de ah, macha allah eh, waaw macha allah ah, ndax parce que aar dama di ñaana Ablaye Mbaye tamit mhm. kooku day yàgg day yàgg sonn si man ndax wax sa moro wàññiwul dara si sa mbaax da lay gën a yokk rek kooku sama rakk ju baax la barke fu mu ko woo mu fekk si ma ma di déglu samay conseil di ko ñaanal yàlla fu mu bëgg a yegg si aar bi yàlla jàppale ko mu yegg fa si daraje Seydina Mohamed da doon tëgg simba wanto trifo fa la jógee si simba sa si simba sa mu ne ma Matar sa bàq bi nga tëgg tànn biir boobu dafa daaneel boobu dafa neex dafa ma neex ma ne xaaral ma joxaat la beneen daaneel ma jël mbëmbëng gi lépp ci biir si. si simba si ma jox leen si simba si laa leen ko joxe booy commencé ko tëgg affaire bi commencé toj. si la si la dem si bas. ci la ko gars yi jël yóbbu ko ci bas. kon ma maa ko génnee. mais bi nga ñàkkee loolu ginnaaw bi nga ko créé nga ñàkk ko. léegi après lan nga ci tegaat. non dama si tegaat dara. amul leneen loo créé dama ne gaal gi. ah dërëm bi génnoo gaal gi. ndax bas ak maa waa ngéwal ñoom alaaji fay ñëpp benn la man tëggkat yi ñëpp ay ñëpp benn laa leen amu ma si xaaja seen. mais est que jubóo bi am am na seen diggante. non jubóo am na combat aada bi gisoo Alaaji Fay mi ngi foofu di tëgg euh, kii bi comme kii kii de presse bi. ah gisoo Alaaji Fay mm-hmm. kon ñun ñëpp benn lañ mm-hmm. ñun tëggkat yi ñun ñëpp benn lañ mm-hmm. ñun ñëpp benn lañ kenn mu ñu xaajale. Ah. waaw waaw loolu loolu des fois da ngeen koy wax ni ci ci ci ci ci. internet bi nii ci émission yi pour rafetal mais man xam naa ne yéen ñoom nekku leen benn parce que tamit bëri na lu luus seen biir ak seen diggante waaw am nañ am na ci nag ñoo xam ne seen diggante ratax na am na ci ñoo xam ne seen diggante rataxul mm. loolu foo dem fekk ko fa du dëgg mais loolu lépp mun na nekk mais dama bëgg euh, nga ñëw ñamal ñu tuuti ñu xool ndax yow da nga mën a tëgg wala mënoo tëgg parce que mag ñe ne nañu dafa am lu raar luñ gëj a ci tëgg mi léegi xalay yi léegi suñuy tëgg dañuy ñëw rek tëgg noonu duñ tàggu mbaar mën nga tàggu mbaar tàggu mbaar esaay da bu nekkoon heure jumaa bi dama lay gëneel ndeer te dama la génneel ndeeru jëmbe ndeeru pekk laa lay génneel nga tàggu mbaar ma tàggu la mbaar nee naa la man aar bi dama ko dama ko jàng dama ko napp dama ko téye mhm. Mhm. ko gëm mhm. dama kaa bëgg. bu nekkoon heure jumaa bi. billahi wallahi taalahi ma tàggu lambaar. te dëgg la mhm. am na ñoo xam dañuy ñëw rek far jar. loolu la mag ñi di wax. te arrin dafa am. ñëw teg seen sabar dëgg ma arrin dafa am. arrin dafa am arrin dafa war a sax après nga tàggu mbaar ba ñëpp dégg fargu jar bi daa ngay ñëw fargu jar bi boo daanelee fargu jar ñëw ceebu jën. boo jigee ceebu jën doog a ñëw baara mbay mais am na ñoo xam ne bu ñuy tëgg la lay njëkkee mbay am ñoo xam ne dañuy jëkki-jëkki ñëw ramatan na bax ramatan ceebu jën bi daw waaw te loolu c'est normal tëgg dafa am yoon étape par étape léegi lu tax amatul groupe yi ñuy sàjji amatul te da nga du njëkk ba da nga naan gis ñoo xamante ne mhm. dañuy am seen élément yoo xam ne ñooy sàjji bokk mhm. par rapport ñoo xamante ne ñooy tëgg waaw ñoom jiitu. ñooy jiitu. ñu war a tëgg avant ñuy ñëw. déggalu ma la beneen groupe jiitu. tëgg ba tëgg bu njëkk ba. Mhm. dana am mbàccandeer. léegi loolu gars yi mbàccatuñu man programme yi mag mag yu mag yi yu ma xam ne fii ay mag ay meer ak fii ay ay meer damay teg mbàcc mbàcc bi mooy yow tëgg bi. pour mu toog pour mu toog fu mu war a toog. pour talmat ngeen di dégg talmatkat yi di dëgg toolu coolu tulli bi. Mhm. lépp di naaj. lépp di correct day yeewu tëgg dafa war a yeewu. Mhm. Mhm. waaw man nag duma ma dingaat kenn man man man sama bopp sama bopp man laa lijjante lijjantuma kenn. na parce que jamono yi toll nii jamono yi toll na jamono goo xamante ne da ngay wax fii ñu foo ne ñoom ngay waxal. wala ngay wax fii ñu da ngay wax pour wale gaarawaale ma kenn man damay wax man ni may maanaam ni may tëggee laa lay wax nii man ni may tëggee ni may doxalee mhm. pour jéem a avancer mhm. te bëgg naa fu ma teg sama tànk bëgguma ko fa tegaat dama bëgg a dépasser loolu mhm. fi ma bëgg a nekk dama ko bëgg a dépasser dem ci beneen étape loolu mooy yoon loolu mooy ko xam fi mu jëm euh, mais léegi nag dama bëgg ñu ñëw ci actualité ñëw tamit ak li xew ci réew mi ak li ak li yëngal réew mi Euh, mu mel ne que yaay tegal Ada Fass euh, barki dembu li xew biir esam am tànk Tamba Masor bu toll ni kii tegal Ada Fass ndax yow sa diggante ak Ada Fass am na communication bi ce mu ngi daw comme tey seq ngeen loo xam ne ngi koy conseil Ada defee wal ni Ada waxee wal ni est-ce que est-ce am na sa Ada. Ada moom. dafa am sama kees. dafa am kers si man dama koy envoyé message sax balaa mu may lire day yàgg na parce que dafay am kers sama diggante ak moom par rapport que yeneen tëggkat yi ak mbër yi nu ñuy nu ñuy mel maa moom meluñu noonu cent pour cent mais mais dafa am kers si man waaw mais xanaa doo géwél la ankay ah, ah waaw mais loolu kersa foofu kersa moo fa war su am parce que xam nga lu dafa am lu tax ñu naan ci bu ko kersa waru fa am yaa ngi dégg wax bi mhm. tey yow war nga mën a xëcc aada te ko ruq wax ak moom ne ko aada doxalee woon nii defee woon nii nii laa bëgg mu affaire yi amee nii laa bëgg mu defee parce que am nga cër boobu ci moom waaw mais loolu loolu yoon la muy am sa diggante moom dëgg la man dama koy woo téléphone su defee dara nii ma koy woo téléphone di wax ak moom moom dégg naa li ngay wax tàmbal ma soor naa si bàyyi xel mais comme maa moom dañoo rusante ma parce que xam nga la moo garaaw moom doon nekkoon doo école football. ah ja moom football. da doon góol. barki yàlla rus wi foo lay jugee maanaam nit ki boo leen yabantee rek mhm. am na moment yoo xamante ne boo leen fa te rek da ngeen di rusante am na ñoo xam ne fii fii Fass ñu bëri ñoo foowandoo defandoo lépp defandoo fu ne di demandoo fu ne mais après rus dafa amati suñu diggante suñu biir ba ku romb moroomam sax day sëgg. loolu tamit xam nga loolu tamit day joué day joué loolu moo tax ma Ada Fass dafa daf ma rus kersa ki day daw sama diggante mais su ma war wax dëgg dama koy woo téléphone dëkk mbër li ak lii ak lii mu ne ma dégg naa la tàmbal masoor mhm. bu ma soxlaa ne ma mbër ma tàmbal masoor lii ak lii ak lii ak lii mhm. mais bu nekk woon maanaam fu ñu jot a jaar dañuy jot na maa moom ñu jëkki rek di bëreel di dóorante di kaf di def ay affaire di ko dégg ñu ne ah kii de moo tëgg katam de mm-hmm. ah nice mais maam moom daa am foo xamante ne dañ fa jot a jaar xam nga foo wondoo mm-hmm. kersa boobu day am suñu diggante maam moom. waaw mais mais mais loolu nangul naa la ko mais dama ne liggéey liggéey la barki démb Mamadou Mbaye bu Bekaay Mbaye bi làmb ji jeexee ku ne dégg na ni mu waxee mm-hmm. magi géwél yi ba ci suñu papa ñoom Bekaay Mbaye ba ci magi magi géwél yu bëri dañoo nangu ne Ada Fass amul ay conseil ñii ne amul ñuy waxtaan ak moom xam nga Ada Fass maanaam ba ci ba ci géwél yi ànd ak moom di ko tuusal sax war nañ di waxtaan ak moom ci ni muy doxalee mais tey su fekkee ne tey loolu noonu tey Ada da ko tey yow mi nga xam ne jege nga ko am cër ci moom war nga mun a tamit di waxtaan ak moom ci ci façon doxee na la hmm. du dëgg mais tey dañoo gis ne bëri na nekk xale bu ndaw di daan di daanu yàlla dogal dugg na cour des hmm. mu def loo xamante ne ni tey bokk na ci liy yàq làmbam mooy def na loo xam ne loi bi bañ na ko seen seen ko te instant bii nii li ko ko jaraloon ba loolu yàqal ko loolu tey mënu ko defaral ba loolu baaxaat aj nañ ko un an un an yi yi mu war a toog te du bëre soo amee loo koy wax pour en cas beneen combat ak su yàlla dogalee ñu aji ko jàmm ak salaam lay doon sa message. waaw sama message euh, xam lan doon instant yi nii toll aj mu gën a fonk entraînement am mm-hmm. gën a góorgóorlu mm-hmm. gën a xam ne ne fu mu war a ye fu mu instant nii li nekk si kanamam mm-hmm. da ko nar a ëpp doole lenn rek moo fi sës gën a sonk fonk entraînement am gën a amal ñëpp a jàmm di nemmeeku ñëpp ndax sa gox bi nga dëkk boo amalee ñëpp a jàmm rek am nga lépp waaw te aada xale la mun naa ne xelu xale bee yóbbee nii mun naa ne moom loolu noonu mu def noonu njëkkeewu ko fi te mujjeewu ko fi am na ay mbër yoo xamante ne pour nga bëgg dara fa nga def dara te munu préparer ay millions si làmb benn bés benn maanaam ay minutes ba lu ko yàqal. dama bëgg wax ne yow da nga d'accord si li mu def. non d'accord ma ko d'accord ma mais daa am loo xamante ne da ko ko laaj pour nga def ko pour am fi nga bëgg a ye ah bëgg a yegg. waaw mais yoon dafa mbëri ko fi jiitu amul benn mbër bu ci bu ci mos a doxalee comme moom ni mu doxalee waaw waaw déglu moo tax ma lay ada xale la mun naa ne moo tax ma ne la mun ne mun naa ne ne xelu ko yóbbu noonu parce que daa am fu mu teg bëtam mu mu jaral ko mu mu doxalee noonu mais du yoon du yoon de nangu naa du yoon mhm. mais dafa am fu mu teg bëtam te tamit munu préparer combat am génne ay millions def ko si def ko si ba pare du ko perte noonu te xale la dafa nekk si yoonam nañ ko ñaanal yàlla jàppale ko ndax xelam yëpp da ko def si bëre waaw na ko ñaañ ko ñaanal yàlla rek waa CNG li ñuy def nii xale aada xale la rek ñu yërëm ko jàppale ko ajiwaat affaire yi waaw aada wax dëgg dafa bokk ci làmbu Euh, suñ ko mënee dawala yërmande tamit nañ ko dawala yërmande xam ne deratu xale bi moo yëngu parce que dëgg la euh, euh, li géwélam wax tamit nangul naa ko parce que tamit xale moom des fois am na fu dimension am di toll xel ma doy ñëw waaw doole jaa fay nekk ak deret ba nañ ko dimbale ñu ñu dawala ko compréhension mais dañoo gis diggante Ada Fass tamit liis njaago coow li bari coow li bari coow li bari te lamb booleegu leen lan lan moo lan moo waral coow ak lu indi coow li loolu yàlla bu ko tuddee rek day am combat boobu seen combat combat boobu yàlla bu ko tuddee rek kenn si dara day yàlla bu ko tuddul nag du am. mais est-ce que làmb boole na. mais Liss Ndiago instant yii du laalagu sax ay mo mooy jàmm gën ne ñu làmb boole na leen. non non man. parce que ku bëri gaw ma ne. te sos tamit bëri naa guy gi. waaw kamoo daan. sos guy gi bëri nañ. waaw kamoo daan guy gee daan. ah guy gee kan moo ko daan. guy gi aada bu daanee guy gi après ñu jox ko aada ñu xool <laughs> wax laa la wax de. mais mais mais waa Fass tamit avant may egsi dafa am ñaari message yuñ ma jox ne naa la ko wax yow pour nga jàllale ko. Uh-huh. nani ñu saa bu mbër di bëree ñoom dañuy jooy kaaraange lii jot a xew avant combat ak sursi waa Fass ñu ngi koy ñaawlu. ñu ngi koy méttalu ñu ngi koy naqarlu ñu ne nag buñ sañoon am tànk géwélam yow message bi nga jàllale ko ci Ada Fass ba mu jot ci ba ëllëg su amatee combat mu mun a waxtaan ak ay booyam waxtaan ak ay supporteram li ñuy def ñu teg ko ci yoon mooy valu violence bi am nangu téléphone yi génn jam yi fii paaka yi fii mais booy yi am na ku ne ma sax bu fekkoon na dañ koy defee feneen sax mu mu mu tane mais seen biir koñ ci buntu koñ bi lañ koy defee ñu koy ñaawlu lool am tànk géwlu Ada Fass loolu nan nga gisee. loolu moom dafa ñaaw ndax euh, combat moo kii moo Zarko. ko mhm. ñuy dem 2S. Mhm. am na benn booy boo xamante ne boo maa ngi si convoi bi yor sama machine. Mhm. am benn booy boo xamante ne daa gis benn femme rek këf saagam maa ko dàq ji ba récupéré saag bi. ah dàq ji sama machine. boo maa ngi deux cent cinquante machine. deux cent ma dàq ji ko ba jël fekk ko jokk ko ba mu ngi jooy mu ngi jógee banque oh. mais booy di def yooyu yëpp dëkkuñu fi. mais lan moo tax man waa xaaral rek lan moo tax man géwél man bu mu dégg sama micro barki démb dama dégg dama dégg booy bi tëgal Sarko moom tamit mu taxaw ne booy def booy def loolu dëkkuñu dëkkuñu grave mais mais nu nu mu demee noonu kan lañ yàpp ba war mun a dëkk feneen ñëw ci ko ñu jàmbur di ko saltel waaye xam nga la moo la moo garaaw man mënu ma dëkk fii waaw may këf may sa may këf téléphone jàmm naan maa ngi këf sama koñ dañ may jàpp ah, ndax dañuy xam ne ne kii mat kii këf nii mataar la te fii la dëkk mais ñi ma mais ñi ma tasel ñoom ñu wax ma loolu nanuñu booy koñ bi ñoo def booy dëkk fii di këf ñoo koy def xam nga loolu maanaam na nanuñu booy dañuy jël loo xamante ne nii duñ xàmmee janj ak joor non non loolu moom loolu moom dama koy bañ loolu moom loolu moom dama koy bañ nangu naa lépp mais loolu moom dama koy bañ àdd dafa njaboot booy jël dëkkuñu faas. déglu ma ah dafa njaboot. mais booy def loolu dëkkuñu a ngi lay seetaan de te àdduna a ngi lay seetaan. barke yonent bi laa la booy di def noonu dëkk dëkkuñu faat faas te man booy bu fas bu ma gis ngay def loolu ñeme naa xeex ak yow ëpp ñu ma fit gënuñu ma woyu gënuñu ma dafa fekk ne daam loo xamante ne dama fa dama fa bëgg a yegg. non mais mais non non non xaaral balaa ñuy yegg foofu. voilà xanaa kon waa Fass ay ragal la fi dëkk. mais man man man naka laay bëggee aada Fass di dooleel aada Fass di jàppale aada Fass am boo yoo xam ne dëkkuñu Fass ñu war a mun a ñëw sama koñ di salte man ma taxaw di seetaan loolu. waaw Fass bu ñu fii dañ fiy salte rek dam may jaaxal nga xam ne dam may jaaxal bu dee dañuy génn dañoo génn am na salte mais Fass fii ñi ñu ne ne dañuy dañuy jël fii téléphone wala sàcc fi dam may jaaxal ndax booy. am na waa ITRA bi dañuy bañ loolu. mais ñaari femme danañ ma ñoom seen suuru combat yi passé. waaw dañoo romb seen yoon newu ci. waa ñoom fa ñoom fa lañu dëkk. ah loolu lañ ma wax. waa ñoom fa lañu dëkk. ji nga maanaam xam nga romb daal lañ xamala moo garaaw. ñoom daal dañ romb lañ wax xamala moo garaaw. <laughs> di nga nit dëkkal nit ki fu mu dëkkul moo bare si jamono ñu toll gii jamono ñu ah kaama dul la moo gën a gaaw kaama may la si jamono googu lay ne. kaama dul la gañ. <laughs> barke la moo gën a gaaw kaama may la te yàlla xam na ne nit ki si looy wax waxala sa diggante yàlla sunu boroom dëgg mooy njëkk te dëgg mooy mujj déggoolu ma la xanaa booy fas bu ma gis ngay def loolu ñeme naa xeex ak yow ndax jamonoy làmba joolaa fii fii la ma fekk. te man du ma tux cigarette làmb joolaa fii la ma fekk ah fii la ma fekk fii fii dama daan tëb miir dama daan xeex ba daw sama R4 yi yii kon nga xam ne booy ma ëpp ma fit fii sàll la woon dancine fii ku amul fit daawoo fi terrain ni bëccëg gi sax gars yi police dañ fi daan taxaw fi ni fii ñu nga gis ni mhm. mhm. léegi dañ ko tëj bu de fit ëpp ko maa leen fit foofu mais dafa am am na moment yoo xamante ne dootoo ko toll responsable la te ay xale ñoo nekk sama ginnaaw am ñu nekk sama ginnaaw ay royukaay la man royukaay la te ñoom dama war a joxe bon exemple boo xamante ne ñoom carrément dañuy jaar si yoon boobu mais du ma joxe bon loo xamante ne ñoom dañ fay dem ma mën du ma leen tere. mais mais lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo koy faral di def saabu combat Ada Fass amee combat comme que dëkkuñu fi. comme dëkkuñu fi. waaw wala boog wala boog waa Fass yi nga xamante ni ñoom tamit dañuy fekkee loolu di seetaan. xam la laa la laa lay xamal. képp koo xamante ne na nga jóg pour jàppale mbër te yàlla rek a tax mm-hmm. nga jóg jàppale ko si fair play ñu mm-hmm. dem ak si jàmm mm-hmm. ñëw ak si jàmm mais fekkee na nga jóg pour ay wala pour sàcce téléphone xam nga defee ko feneen mais pas sunu mbër nga instant ni moom dañuy yàqal mbër ndax dañ naan mbëru aara Ada Fass buy bëree yàqamte wu ñoo xam ne parce que sàcce yi te fekk noo du si moom aada la ñu yàqal yàqaluñ seen bopp de moom moo tax ma sànq ma ne la aada dafa njaboot sànq moo tax ma ne la aada dafa njaboot fu nekk la waay di jóge mhm. di tamit di ran di joxe tamit message mhm. waa Pout waaw mhm. ndax laa demee tabaski bi fa laa doon tëggee soirée am benn zil brown foofu ñoom tamit dañuy bàyyi seen ité yëpp aada buy bëri dañuy ay kaar di ñëw di ñëw ak jakarta di ko dooleel di ko ndax ñoo moo message boobu ñoom dañuy ñëw si si man naa ma aada dañ ko bëgg te bëgg naa tamit aada après da wax ak moom pour mu ñëw pour mu dem seeti leen ndax ku la yëg da koy yëg moom mun na bañ a xam loolu ah te ñi ñeen ko koy defal léegi comme ñoom wax nañ ma ko dama ko koy yeggee aada pour mu dem seeti leen mhm. waaw waa sen message yegg na géwélam dina ko yeggee aada man dinaa gunge géwélam man ak moom ak aada ñu ñëw ba Pout seet si ay soppeem ak ay xaritam yi nga xamante ne ñu ngi Pout di ko bëggee aada aada Ndakaaru la aada Sénégal la aada adduna la ñëpp ko bëgg di bëggee xale bu ndaw la ne ci yoonam nañ ko jàppale te yàlla rek tax mais gis nañ ne parce que ñu ngi ci fin émission bi actualité yi nga xamante ni am na léegi ci réew mi ray bëri na lool talibaa ngi ray booyaa ngi ray am tant que kilifa am tant que responsable lan ngay message ci ci ci ci ci ci am ci réew mi. li am ci réew mi moom. rek ëpp na de. dama ko ñaawlu dama ko ñaawlu trop ndax dëkk bi dëkk lislaam la. waaw dëkk dëkk jullit. boo yaa nga téye nga yor paak wala nga yor dara di ko sa moromu jullit nga koy def loolu. même bu dul sax bu nga koy def jëmmal doomu aadama sax jëm aada doomu aadama sax dafa foor wallaahi jëmm doomu aadama dafa foor nga dara di ko di ko jam dafa doy waar parce que suñu génération dafa nar a métti dañoo war a am ambition mm-hmm. ambition bi xamal lan la liggéey sellal sellal mm-hmm. waxtu yi juróomi waxtu yi xanaa xam nga boo amulee métier sax nga mata juróomi waxtu yi mm-hmm. sunu borom bi da lay ibbi xéewal du njaaroo sama ko doon wax sama maam mhm. fu mu nekk yàlla na ko yàlla xaare àjjana day dañoo dem Maroc ak Tafa Njaay doom ji mhm. maa ngi koy maa ngi nuyu tamit bu baax mhm. waaw dañ daan dañ daan répété pare dégg jàq ji mu ne dem leen ngeen jub julli ji ñëpp ñëpp jug dem jàpp dem julli ji du ñaaru si boppam oh. nga am su suñu génnee am ñu si yoroon cigarette di tux mu ne doo leen lii toog di ñu yedd nii xam nga man man benn doom laa si ndey si baay ah aw ma mag aw ma benn la benn doom si ndey ak si baay sama yaay man la yaakaar sama pap man la yaakaar yow am na lu la war kon am na lu ma war kon am na yenn détails yoo xamante ne man du ma si ne mm-hmm. am na yenn yenn yenn tuuxa dund yoo xam ne ne du ma si ne aw ma si aw ma jotam mm-hmm. ba ma demee stade keroog ñu téye ma ma ne ko man lii xaw ma ko coow naa fa coow mooy suru combat suru combat bi na parce que dañ naan la quinze personnes ngay indi ngay indi quinze personnes nga dem ba supporter ba ñu ne la léegi douze personnes ngay dugal ñu demaat ba si yàgg ne la dix personnes ngay dugal ni ki maanaam si looy def a koy def sa njëlbeen ma ah tëgg tàmm ma sol temps de spirki ngay indi. mais ñan ñan ñan ñooy def lu mel noonu. Ah. xanaa waa waa waa CNCR la wala wala wala boo. ñu ba ma demee ba sa porte ba. dañ dama quatorze personnes ma heureusement yàlla dafa def ne quinze personnes lañ ma ma indi quatorze personnes dama indi treize éléments ak man mi quatorze. kon nga xam ne wàññi naa benn. ma demaat ba si buntu bi entrée bu ñu war a duggee. ñu nit ñi carrément yéen douze personnes ngeen di duggee ma jël ñe ma jënd ma ne leen dem leen ngeen jënd ticket. ngeen yëg si kaw ma dugal douze personnes ma dugal douze personnes ñu ne ma déedéet douze li ngeen di dugg dix personnes ñu ne waa dix personnes léegi dis léegi boo dugalee dix ak man onze la war a doon n'est-ce pas tàmm ma soor bi doo doo doo si calculer si dix bi ah ma dugal dix ñu ne ma léegi yow doo dugg nax parce que dis personnes dugg na <laughs> kon maanaam di ñaanaat waa CNG ñu xoolaat bu baax lu ñuy def lu ñuy def teg lépp ci yoon ndax mbëri combat la ñu am làmba la ñu am te làmba dafa bokk ci culture culture Sénégal làmba dafa bokk ci Sénégal làmba jamono ñu toll nii mhm. ah Sénégal mënul dem sans làmba maanaam da maanaam dafa war a rafet ñu xool ni ñu koy organiser mu jaari yoon mhm. li war ak tëggkat ñu naan tëggkat yi ah lii ak lii la war a dugal ñu dugal loolu wax bañ am coow bañ am mhm. mais boo waxee lii demaat ba si biir teg bu doon sax benn wax benn nit mooy wax lii wax lii wax lii mais da ngay ñëw fii kii wax la lii nga dem fee kee wax la lee wala nga dem fee kee wax la lee aada day mbër bu mag bu ñuy jël ay sabaram di ko jële si si si tribune ma ne ko ma ñibbi moo ma gënal ma jël sama sabar di ko jaarale ay tribune pour mu wàcc duma ma def ñu wax ba soo man leen du ma jaaral sama sabar si ay tribune bu dee spécial lay war a bëri da nga naan waro indi sabar mu bañ a indi sabar ma loolu laa d'accord mais boo ko nee da nga war a indi sabar ah tant de sabar lañ la war a may ba pare nga naan ko da ngay da ngay da nit wala nga ne ko nii si tribune ngay jaar loolu loolu du yoon du respect mm-hmm. aada du mbër boo xamante ne da ngay jël ay sabaram ah mu war a mu war a tuus mu war a mu war a tuus muy muy muy jël ay samaram si turbine wala mu tuus ba pare nga naan ko sa cool loolu nga yóbbu ma moo ma gënal ma yëkkati sama cóol sama cóol su ma xasee ba teg samp aada moo war a tuus ma teg sama cóol teg xam la moo tax ma yëkkati ko combat bi jeex mo ma xasee ba toog teg sama cóol laa la combat bu jeexee moo tax ma yëkkati ko mais combat bi tan que jeexul cool bi du déplacé wu. yow loolu mooy sa cër ci làmb ji. mooy yoonu làmba mooy yoonu làmba maanaam lii cool bi gàllaaj la si mbër bi. waaw ak bi ak galañ bi gàllaaj la si mbër bi. Mhm. tuus bi daa am lu muy jox mbër bi. Mhm. li gars yi naan tuus mun na yàqal mbër bi mbër tamit mun na yàqal tëkkat bi. Mhm. dafa am waaw moo tax ma ne la man. am ay secret yu ci moo tax ma ne la man. maay géer gu mën géewal. da ngaa yéeme <laughs> da ngaa yéeme. moo géer gu mën géewal nag. <laughs> da ngaa yéeme mu mel ne waxtu bi jeex na euh, moom message bi nga jàllale macha allah am na solo euh, waa CNCR li ngeen di def teg leen ko ci yoon ngeen bàyyi xel tamit géwél yi. waaw lépp ngeen teg ko ci yoon waxtaanee ko géwél yi ak mbër yi dañoo am cër ci làmb géwél ak mbër ñoo ëpp cër ci làmb. suñuy fonk ak suñuy respecté nañu fonk mbër yi ak géwél yi hmm. parce que mbër ak géwél bu amul ci làmb ay arbitre kese du ñu dugg esaat du saf ay police kese du ñu dugg esaat waxtaan wax dëgg ca la kon affaire yi dawal leen ci yërmande ngeen oyofal yéen bi tamit da ngeen xam ne gars yi dañuy daan seen doole rek mënoon nañ ne ci leneen euh, ñu ngi ci fin émission bi kon yaakaar naa dañ lay bàyyi euh, comme que doomu jullit nga kilifa nga mu am ñaari point yoo xam ne dañ koy faral di laaj ci ci ci diine ji mhm. ak invité bu mu mën a doon xam nga li ma bëgg mooy nga ñëwal ma ci ci ci ci ci ci ci liqam ah loolu moom doy na waar waaw liqam waaw <laughs> su ma sooyoo loolu loolu nag da nga koy jël tegee ko ne leen déedéet waaw si la bokk non xam lu tax waaw man man daa am noo noo xamante ne noonu laay noonu laay noonu laay doxalee li si lii nga ma fekk si lii nga ma fekk ah si lii nga ma fekk nañ waxtaan si lii boo ma fekkee tamit si wàllu leneen maanaam li si lii nga may laaj ma tontu la si loolu. xam nga lan moo tax lii des fois ma koy laaj ku mun a doon. waaw yow comme ni nga ko waxee référence ah, nga. da am ñu la bëgg am ñu lay bëggee am ñu lay seetaan. Ah. muy muy muy ñoo xam ne ay jullit lañ amaana ñu bañ a doon jullit. mais tey en tant que doomu jullit. tey normalement dans les normes war nañ dëkk micro laaj la si sa point diine ñaari point rawatina bésu ajuma bi nga xamante ni moom la émission bi tombeel kon tey bu dee fekkee ne ñaari baat la sax war nga ko mën a wax ci diine ji pour ñi lay déglu ak ñi lay seetaan ak ñi la bëgg te xamaguñ ko mënaguñ ko loolu moo tax laaj ci message. xam nga su ma sa yoon. waaw ndax bi nii rek yëg-yëg la. dafa neex dafa neex. waaw mais man man dégg comme li ma la wax. li xam daal bëgg naa man man dégglu ma la comme li ma la dama am tànku kanam <laughs> aw ma tànku ginnaaw si wàllum lii. maanaam si wàllu lii ah nga ma fekk si xam nga lii ak loolu àndul àndul de. mais mais mais xoolal waxuma la ngay tëgg di saay xam yaa ngi toog. xam nga la moo xam nga xam yow la moo maanaam la moo tax nga ñëw fi si wàllum aar bi may dund maanaam fekkoon na nga ñëw carrément na ma mataar si wàllum diine bi lañ bëgg a wataan amul benn problème. damay def sama ñaari. samay def sama ñetti abdu. waa léegi garaaw toog jàkkaar yow nii. waa léegi waa garaaw léegi léegi nañ bàyyi li xam bi. ñu dem ci faratay julli yi ñaata la. waa déglu ma la xanaa lu wa maanaam lu wàllu wàllum kon. maanaam yow lu jëm ci diir maanaam instant yii ñu toll nii instant yii ñu toll nii. waaw lenn rek laay laay dégg laay laay joxe message. waaw maanaam juróom waxtu yi. waaw buñ ko kenn raw. nañ fonk waaw nañ koy fonk mais lu jëm si maanaam diine bi ni lii nga ma fekk si si lii nga ma fekk si lii laa lay tontu ba mu ba mu jeex mm-hmm. mais bu fekkee si loolu maanaam si wàllum diine bi nga ma fekk damay def sama trois pièces toog jàkkaar ak yow waxante ak yow si wàllum diine nangu naa la ko ah, nangul nangul yàlla nag waaw waaw ah, nangul naa la ko mais su ma sañoon tamit nga tontu ci parce que parce que ñi ma invité ñëpp euh, ku ma ci laaj tontu nga ci li nga xam mais nag garaaw dañ la koy jégal amaana euh, amaana sa sa sa sa sa kersa moo tax doo ci xuus parce que dëgg la ku ci nekk tamit liñ la jàngal mais lan mooy sa dernier message booy lancé ci sa dëkkandoo ci réew mi. waa en euh, maa ngi baalu àq ñëpp di bal àq ñëpp bu dee tamit aada def na loo xamante ni yëgu ko si gox bi mu dëkk maa ngi wax ñu baal ko àq na xale la yëgul tinul man tamit bu fekkee def naa loo xamante ne yëguma tinuma maa ngi baalu àq yàlla def na nag ñëpp jàmm laa sekk ñoom am ak ñoom ñëpp jàmm fu nekk fu ma romb damay toog waxtaan ak ñoom waaw di di di ñaaxaat tamit waa CNG li ñu teg booy bi ñu teggil ko ko ndax booy ndaw la te daam fu mu wax mu bëgg a yegg di ñaanal yàlla tamit staff bi staff Ada Fass ñu gën a bàyyi xel si loolu di gën a conseiller aada maanaam si affaire li ñuy wax ni loolu day day yàq suñu der waa Fass day yàq des waa fas te waa Fass melul noonu ñun ay noble lañ ndax boo demee ba ne aara ndakaaru rek ndakaaru mënoo ko mënoo si génnee tëngeej ndax fukk penc yi la bokk mënoo si génnee ngor mënoo si génnee wakaam ah yoof mënoo génnee kon ñu ñëpp benn la di ñaan lañ yàlla yàlla dafa dafa ñu bàyyi fi sama yaay sama mm-hmm. pap ak mépp doomu aadama goo xamante ne mbébét nga mbébét yegg fi nga bëgg a yegg yàlla defal la ko si si daraje ajuma gi waaw di la ñaanal nag yéen mm-hmm. gudd fan yaram site bi yàlla na yàlla yàlla nekk site bu kawe mu doon àdduna ñëpp di ko déglu mm-hmm. waaw di ko ñaan di leen ñaanal yàlla ah, di ñaanal abakara nag abakara surtout kulim juum nag ak Aziz waa ITRA bi maa maa maa ngi ñëpp di leen ñaanal waaw di ñaanal ñëpp na ku lim jum barki yonent bi di ñaanal Baye Fall Xaadim maa ngi ñaanal ñëpp di leen remercier ñoom ñëpp ndax ñu ngi daj ci combat aada ndax xoolal ñu intere toppal ñu aada intere dañ ko bëgg a te yàlla rek a tax te nit ki moom boo koy xoolee intérêt ànd boobu du yàgg mm-hmm. mais boo ko bëggee jàppale te yàlla rek a tax suñu borom da ciy teg loxo suñu borom da si teg incha allah yal na yàlla motali lépp di ñaana tamit sama waa groupe waa Fass Family waa Fass Family maa leen di ñaanal guddi fan ak wér gu yaram ak yokkute ba yàlla boole ñu si darajey Seydina Muhammad ak waxtu bii ajuma gii ah mu waroon ma fekk ma jàpp ba set dem julli mais ñun ñëpp waaw di leen ñaanal yàlla yàlla sotti lépp si darajey Seydina Muhammad waaw yal na ci barke yonent bi di tuub di jégalu nag euh, euh, su fekkee ne émission bi am na ñu mu tuuse parce que chaque émission mila la dañuy indi ci actualité wax li nga xamante ni moo am ci réew mi ak ak ak adduna bi di doxee ñu ngi tuub nag di jégalu bu baax a baax a baax tey ñu ngi fi amaloon doomu géwél doomu Medina doomu Faas ki nga xamante ni mooy bàqal Ada Fass mooy tuusal Ada Fass saabu Ada Fass ngemboo di dugg lamb moo ko yóbbu esat ñu koy ñaanal moom tamit yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla def mag yal na yàlla jàpp say combat ci barke yonent bi euh, am nañu mbégte kontaan nañu wante tamit man damay jàllale benn message ci ndaw ñi ngir yàlla jëme Seydina Mohamed ñu ndaw ñu ëllëg réew bi ñoo koy mujjee suñu loxo lay mujjee puso bi suñu loxo lay mujjee nañ koy rafetal dëkk bi dëkk bi li fi am jamono ji ñaaw na rey mi ñaaw na tali bi tamit savor si dawal leen ndànk accident yi bëri na nit ñaa ngi jeex géej gi géej gi tamit macha allah tey rek am na benn gaal gu këppuwaat ay nangami doomu aadama ñàkkat seen baxan réew mi daal man daal xaw ma xaw ma xameetuma ban réew la yal fi yàlla def jàmm yal fi yàlla def sutura yal na fi yàlla dolli wér ak kattan maa ngi joxe rendez-vous di joxe dig daje euh, ci beneen numéro ak beneen invité beneen artiste ci beneen yoon incha allahu rabbi bu soobee yàlla kontaan nañu am nañ mbégte sama invité bég naa ci yow yal na jàmm yàgg yal ñëpp am jàmm waaw kon caaw bye bye ba beneen yoon incha allah rabbi seen beneen numéro ñoo ngi woon Fass caaw ba ëllëg incha allah merci merci beaucoup merci